dina xam ñi muy bokkal pool ba noppi dina xam bu demee ca Qatar fan lay dal ngir jongante match yooyee président wu FIFA yi di Infantino bind na bataaxal fédération bu Sénégal li tax nag mu bind ko moo di daf leen di njukkal wala daf ñuy njukkal ci qualification bi nga xamante ni sunu réew du Sénégal am na ko bii nag mooy ñetti yoon Sénégal di dem ci coupe du monde ñaanal na leen nag ne leen yàlla na ngeen am tirage bu neex coupe du monde boobee tamit yàlla na neex lool ci yéen ñu jugee ci fédération sénégalaise gardu kooru Mohamed Salah moom nag mi ngi tudd Amra Abbas la mu xamle nag moo di match boobee doon dox ci diggante Sénégal ak Égypte bi mu jeexee ka muy garde di Mohamed Salah toog na ay minutes xoolul li ko waral moo di kat yi nga xamante ni gone Sénégal yi ñoo ngi ko doon teg ci ay bëtam loolee ba match ba jeexee da koo jural jafe toog na ay minutes yu bari munul xool loolee ki ko xamle mooy garde corps te garde corps nag ku jege nit la moom muy bu waxee loole ci Mohamed Salah rek dëgg la kon nag gone yi nga xamante ni ñoo nga woon ca stade maître Abdoulaye wadd yor ay laseer doon ko jam Mohamed Salah seen xaalis yàquwul ñu jugee ci Mohamed Salah dem ca waa fédération bu Algérie ñoom nag dañoo bind bataaxal boo xam ne réclame réclamation la ko tubaab di wax muy bataaxalum ñaxtu la ñuy ñaxtu nag moo di ki doon arbitré match bi doon dox ci ñoom ñooñee di waa Algérie ak ñii di waa Cameroun di doomu Gambie bi di Papa Bakary Gassama moom moo doon arbitré match boobee waaye waa Algérie la ñu xamle moo di match boobee dafa bëri ay njuumte njuumte ba ci njëkk am mooy ca premier bit ba ñoom ñii di waa Cameroun bit ba ñu dugal mi ngi jógee ci corner corner boobee kat ba ko ñii di waa Cameroun dóoree kii di Rice Mboli dafa jóg di ko jàpp Cameroun bëmax sóoru Algérie mu dal ci góolub Algérie bi di Rice Mboli mu wocci bal bi kii di choupo dóor bal bi mu dugg arbitre bi nag dem na ba ca VAR waaye la mu wax moo di bit bi kat dama koy valider ndax bit la loole nag bokk na ci li naqari ñii di waa Algérie ba tax ñu bind ñii di waa FIFA kat di ñaan match boobee ñu footballaat ko ñoom ak ñii di waa Cameroun du ñu génn Algérie ba léegi ndax seen milieu de terrain bii di Guédioura li mu xamle moo di moom tekki na ay godaasam ca équipe nationale bu Algérie ginnaaw biñ leen éliminé ci coupe du monde bi la xamle kàddu yooyee li mu xamle moo di moom nekkatul xale ndax am na 36 ans day bàyyi gone yi ñu doxal ca équipe national bu Algérie ñu jugee ci waa Algérie dem ca waa gana bu ñu sukkandikoo ci ki yor kàddu fédération football bi li mu xamle moo di ñoom waa Ghana bu ñuy dem ca coupe du monde ba bu leen neexee ñu yóbbaale ñetti gan ñetti gan yooyee nag ca Premier League ba la ñu nekk ka ca njëkk mooy kii di Mohamed Salisu moom ma nga ca Southampton ab défenseur la moom nag ci barrage yi woowoon nañu ko waaye dafa gàntaloon waaye jamono ji ñee na noppi na ngir bu ñii di waa Ghana di dem ca coupe di monde ba mu ñëw jàppale leen keneen ki ma nga ca Brighton moom lamtee la tudd moom ab latéral la moom sax joxe woon na kàddum waa Ghana ñoo ko woowul woon keneen ki mooy Hudson Odoi moom ma nga ca Chelsea milieu excentré la moom it joxe woon na kàddoom ngir kat bu ko waa gana woowee mu dem ca ki nga xamante ni nag moo yor kàddu fédération football bi li mu xam xamle moo di ñetti ñooñee ñëpp ci ñun rek lay aju ñu woo leen wala ñu bañ leen a woo waaye suñ leen woowee dinañu ñëw ñu jugee ci waa Ghana dem ci waa Lyon ñoom nag potoxlu nañu ci ndogal li nga xamante ni ci waa FIFA la jóge woon muy lan club yi nga xamante ni ñoo nga fële ca Ukraine ak fële ca Russie ku ci nekk ci club bëgg faa jógee ngay jour bu la neexee mën nga faa jógee ñii di waa Lyon nag am nañu ca ak gone muy Tété di doomu Brésil jënd nañu ko waaye contrat ba ñu ko signéel 30 juin la yem bu jeexee nag xëy na waa Lyon yokkal ko waaye jamono ji Lyon la ñu xamle moo di dañuy signé ak moom ba 30 juin mu ngi noonee numéro 20 la ñu ko jox kon kii di Tété jógee na ci Shakhtar Donetsk dem ca Lyon ñu jógee ci waa Lyon dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci AS gone gi tudd Vinicius Tobias waa Real de Madrid dañ koo bëgg a jëlee fële ca Shakhtar Donetsk waaye Real la mu bëgg moo di waa Shakhtar Donetsk abal leen ko ñaari at ñu door fay lu ci tolloog dix-huit millions d'euros waaye gone gi nag su fekkee ñëw na day dem ca Castilla ba maanaam équipe reserve bu Real de Madrid football fa loolee nag waa Real de Madrid ñoo ngi cay liggéey ngir waa Shakhtar Donetsk abal leen kii di Vinicius Tobias moom nag ab latéral la gaa ñi yëf la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kanam ak beneen vidéo incha allah